salaamaaleykum patriote bi vidéo bi damaa bëgg ngeen déglu ko baax añaan fankul mbuur yàllaay may Ousmane Sonko mooy tabe ñi ko bañ ñooy iñaan tabe dafa mas a ànd ak iñaan di tukki ñuy dox ba mu yàgg ñu sarax ginaar gu feebar iñaan daan na ko sànnil ginaar gi daa feebar tabe daan na ko baal ma yar ko rek mën naa koo faj ba mu wér ëllëg yàlla fay ma ci tabe yar ginaar gi faj ko ba mu wér yàlla ci sutura ginaar gay ami doom di ami nen ba mu yoru poulailler i ñaan dem ca buur ba daan na ko yow daal tabe mi ginaar yi mu yor doyu ko dara boo amatee gan demoon mu berneel leen buur ñëw ci tabe wax ko tabe daan na ko ay waaye buñ dikkee nañuy ñëw ma leen di berneel buur ami gan gan ya dem ca tabe tabe rayal leen ginaar di leen omeletal di leen baxalal ay nen ñuy ñibbi kontaan may ko ñaari xar tabe di yar xar ba yor gétt goo xam si xar xajatul te dëkk ba iñaan delluwaat ca buur daana ko xanaa gisoo xar yi tabe yor dayu ko dara boo amatee gan nañ fay dem mu leen berneel buur ñëwaat ci tabe tabe daana ko ay waay boo amee ay gan nañuy ñëw ma leen berneel buur am ay gan ñëw ci tabe tabe berneel leen rayal leen ay xar ñu ñibbi may leen ku ne xar ak ñu kontaan may ko fasu naaru góor tabe di def ngoon gu jot mu aw ca mu yëg ca di paromanaat iñaan dem ca buur daan na ko buur tabe da yor na fas woo xam ne si aw naaru góor la te yow mi sax yoroo ko da ciy war di la saboote pour ñëw ci tabe daana ko wax tabe yow fasu naaru góor may dégg ne da nga koo yor nu mu demee noonu mu daana ko ay waaye buur bu dee da nga koo bëgg jëlal buur kontaan may ko tonu ceeb tonu dugub tonu sukkër bëri goy diw iñaan ñëw ci tabe daana ko buur nee na lii ma la jox moom moo ko yow donc waa dëkk bee ko moom mu daana ko ah ay waaye iñaan jàppale ma waaye ma séddale ko waa dëkk bi tabe jàpp dugub ja sukkar sa meew maag yëpp séddale ko waa dëkk ba ca ngoon buur ba dee waa dëkk ba daan ne nan lay def ba am buur ñu daan ne ah tabe mii nga xam ne si moom moom ñu mayoon ceeb may ñu sukkar may ñu diw ak dugub kii de ku ko def buur sa affaire baax ñu fal ko buur iñaan di wéqatu déggal sax asafurla waaw añaan añaan di wéqatu ba seet dugub ñu for ko suule tabe nekk buuru dëkk ba moo tax iñaan fankul mbuur yàllay may Ousmane Sonko mooy tabe